quatre beneen bi di soixante-dix-huit quatre cent cinquante et un 74 40 numéro yooyu la ñu mën a jotee Serigne Kamal nekk Serigne Lasrar bu yàlla may képp ku jokkoo ak moom yal na sa aajo faju ñu door xibaar yi dooree ko ci waa génération foot ñoom nag siiwal nañu tey jii ne am nañu gan gu mag jugee ci réewu France xaatim contrat ci seenub club gan googee nag doomu Sénégal la mi ngi tudd Abdoulaye Agne Ba fa ñu ko tàggatee maanaam fa ñu ko formé moo di ca US Torcy US Torcy nag centre formation bu mag la nekk ci réewu France am na sax ay punkal yu jot a jaar foofee ku ci mel ni Paul Pogba Jafran Adelaide lay nekkoon ca olympique bu Lyon jaar na foofee doomu Sénégal bii di Abdoulaye Agne ba nag foofee la jugee xaatim contrat ca génération foot kon nañu ko ñaanal mu doxal ci Ligue 1 bu Sénégal ñu jugee ci Abdoulaye Agne ba ak clubam bu bees jël doomu Sénégal bi tudd Souleymane Jules Fomba moom nag mooy tàggat équipe nationale muuma yi xam ngeen ne bu yàggul dara dem nañu ci coupe du monde bi nga xam ne ñoom lañ ko jagleel def fa jaloore ñoo jël troisième waaye moom nag mi ngi wax na at ak ñaari weer mi ngi tàggat équipe nationale muuma yi waaye mosul am salaire maanaam weer mosul de ñu ne ko lii la ñu la fay nee na sax prime de transport mosuñu ko ko jox prime de transport nag moo di nit ñëw am lum la defal boo ko fayul it nga jox ko ne ko paasal ci lii nee na loolee sax moom mosu caa jot waaye jamono ji na xam ngeen ne équipe nationale U20 bi amuñu ku leen di tàggat ki leen doon tàggat moo di Malick Daaf te jamono ji moo yor jaraaf moom nag nee bokk na ci tàggat équipe national U20 bi ndax liggéeykat la te xarañ na te moom nag bëgg naa amal ay jaloore ci équipe national u bi li mu bëgg nag moo di ñu jox ko équipe national u bi mu tàggat ko muy Souleymane Jules Fomba moom nag mooy tàggat équipe nationale muuma yi moo becc ci kàddu yooyu ñu jógee ci Souleymane Jules Fomba ak i doom jël doomu Maroc bi tudd Noussair Masraoui di football ca Bayern de Munich xam ngeen ne moom guerre bi am jamono ji ci digg diggante Israël ak Palestine daf doon jàppale waa Palestine loole nag waa Bayenu de minute tey jii wax nañu ca def nañu ca communiqué bu guddu lool li ñu njëkk becc nag bokk na ci moom mii di Nusayr wi du terroriste naam jàppale na palastine waaye nekkul terroriste li tax nag démb entraîné wul moo di ba mu demee ci réewam di jongante ji match yi ñu amoon dafa indiwaale ab blessure loolu moo tax démb bokkul woon ci entraînement bi kon nag Bayenu de minute ñoo jàppale Nusayr Masrawi ci kàddu yi nga xam ne yëkkati woon na ko di jàppale Palestine mu juróon coow lu rëy rawatina ca biir club boobee ñu jugee ci waa Bayern de Munich ak seenub communiqué dem ca waa Liverpool xibaar bii nag neexul ndax seen latéral gauche bii nekk doomu Écosse tudd Andy Robertson dafa demoon ci réewam indiwaale ab blessure lu mu gàtt-gàtt nag dina toog douze semaines maanaam fukki ayu bés ak ñaar du dugg ci terrain football muy Andy Robertson xibaar boobu nag neexul ci yogoon club ndax taxawaayu doomu Écosse bi am na solo lool ci Liverpool xibaar boobu sa Athletic moo ko xamle ñu jugee ci Andy Robertson ak waa Liverpool ak seenub xibaar bu naqari dem ca waa Brighton ñoom nag yokku nañu contrat wu doomu Japon bi tudd mi Thomas gone gi nag club yi ko bëggoon bari nañu lool waaye waa Brighton yokku nañu contrat ba atum 2027 club yooyee mën nañu caa lim Barcelone ak yeneen club yu bëri ñoo ngi ko doon bàyyi xel kon nag bu leen yeboo nañu dal ndax club ba mu nekk di Brighton yokk nañu contrat officiellement ba atum 2027 ñu jugee ci Mitoma ak waa Brighton jël doomu Allemagne bi tudd Florian Wirtz gone gi nag ma ngay football ca Bayer Leverkusen club yi ko bëgg nag bari nañu lool waaye club yooyee bëgg ko nag am nañu ca wujj wu bees tàq club yi ko bëggoon bokk na ci Manchester City Manchester United club bu ñu naan Newcastle nag moo ñëw dolleeku ca mbir ma ngir xeex ak ñoom mën a xaatimal contrat doomu Allemagne bi bu dee clubam di Bayer Leverkusen ñoom li ñu bëgg moo di bu saison bi jeexee ñu jaay ko ndax xam nañu ne gone gii mën nañu caa am xaalis moo tax jamono jii ubbil nañu ko bunt bi ngir jaay ko xibaar boobu esport moo ko xam xamle. ñu jugee ci Florian Virtus ak club yooyee di ko xëccoo jël doomu Argentine bi tudd Papu Gómez moom nag aj nañu ko ñaari at yoo xam ne du dugg ci terrain football li ko waral moo di dañ ko contrôlé woon ci antidopage bi ñu ko contrôlé ba noppi nag loolee dafa positive jamono jooju ma nga woon ca Séville waaye kat résultat yi génn na jamono ji nag daan yi gàcce nañu ko ci ndoddam ñaari at du dugg ci terrain football ci fàttali moom champion di monde la ak réewu Argentine jamono ji nag club ba mu doon football ma nga woon ca réewu itali tudd Monza waaye aj nañu ko ñaari at du dugg ci terrain football muy Papu Gomez xibaar boobu relevé l'info moo ko xamle ñu jugee ci Papu Gomes ak xibaaram bu naqari dem ca waa Real de Madrid ñoom nag suba dañuy jàkkaarloo ak sevi liste ba nag génn na waaye am nañu ay absent ginnaaw Thibaut Courtois mi nga xam ne moom ñëwagul léegi ak Eder Militão am na ñu ñëwul ndax kat kii di Ceballos bokkul ca liste boobe li ko waral moo di dafa am blessure bu ndaw Nacho tamit bokku ca waaye moom it dañ koo aj ñaari match yoo xam ne du football ca Liga e-sport ba